wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone ca établissement Mbaye et ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ngeen ko bëggee fararay jëmmam jullit mu kàllaf mu nekk war naa fexe ba mu fararay jëmmam waaw ka mu xam atay julli xam fararay julli xam sunnay julli xam fararay njàpp xam su sunnay njàpp wante yooyu yëpp nga réere ko dund ba am ñeen fukki at wala juróom fukki at juróom benn fukki sa doom su la fekkoon nga toog mun la bàyyi luy faratay julli doo ko mën a leeral su leen la bàyyi luy faratay jàpp doo ko mën a loolu gàccee la ci jullit te am na lu ko gën a jafe da fexe ba xamal ko sa bopp ndax ñor na la te julli googu itam soo koy def itam nga fexe ba defee ko nañ ko digle ndaxte yonente bi mi ngi wax ne ni baraana ku julli ba noppi ñu taxañ julli nga kenn ñu taxañee yére bu màggat dóor la ko ci sa kanam julli gi ne la yàlla na la yàlla sànk ni ma sànke te yaakaar ne kenn julliwul nag ngir def ay moment rek soo noppee génn ja da julli ngir am tuyaa da ngay julli ngir am ba te yàlla nag kenn du ko jaamoo ci ne la neexe yàlla dañ koy jaamoo ca na ko neexe te nam ko neexe wax na ko ci téere yi kon war nañoo gën a bàyyi xel julli bu baax ci laab ga ak julli ga rukkoo ya mat sujjóot ya mat ndaxte kat am na benn téere bu la yow wax ne yow mi nga xam da ngay julli mel ne séq gu cof loolu du julli gu baax julli koo xam ne sujjóot bi du mat rukkoo bi du mat loolu baaxul da nga koy julli ba noppi am ci coono doo ci am tuyaaba te nit ki mu kàllaf lu muy def lu nekk war naa fexe ba am jural ko njariñ julleet yim du jaage ni da toog rek ba mu nga dóor say loxo ci suuf te amoo ngant ngant def ko loolu ku ko def yaa ngi def lu wuuteeg ndigalul mag ñi sayul xat yi wax ne man bilaa tahurin yu salli abada bilaa daruratin fa soo fisqin bara laysa lahu bi saalika tayamumi yowma alxiyaamati siwa jahannami aasana allahu min alxusraani wa sari iblisa madal asmaani sayul xat yi kii julli amul lenn ngànt dem tiim waxul ne fay ga dana manki wala lii ngoy fay dafa wax ne kooku julleem googu sawaraw jahannama lañ koy fayee sayrul xaddiim moo ko wax ci jawharu nafiis laysa lahu bi saalika tayammumi yowmal xiyaamati si waa jahannami ki nga xam ne mi ngi julli amul benn ngànt am ndox ba na bañ bañ a jàpp di tiim sayxul xadim nee na kooku sawara jahanam lañ ko fay ci tiim ci tiim mu tiim mu ni ahsana allahu min alxusraani wa sarri iblisa madal asmaani wante soo fexee ba tiim ba noppee tim soo fexee ba julli ba ba ca jiitu muy jàpp ak xam farata yaag sunna ya ba noppi dangay fexe ba defe ko nañu ko sayxul xadim dëgga ne wa awqihu salaata fil jamaa niltum salaamatan mahal karama sayxul xadim ne na fexe bay jullee ci mbooloo su ngeen dee jullee ji ci mbooloo ma da ngeen am jàmm ak tedd nga yaakaar na nit ñëpp li ñuy wut ci àddina mooy ak àllaaxira jàmm ak tiraanga rek te sayxul xadim moo ne su ngeen ko defee niltum salaamatan maal karaama da ngeen am jàmm da ngeen am tiraanga tiraangay àddina ak tiraangay àllaaxira moom la doomu aadama di wut te lu koy tax am sayxul xadim wax nañu ko kon ñu fonk julli ca waajal ko ca ko jiitu ak moom ci bopp ñu xam farata la koy defar ak la ci yàqu ak nañ koy defaree wante suñ noppee dem ñu koy defee fa mbooloo ma ca jumaa ye ca jàkka ya ndax ne nañ laa salaata li jaaril masjid illaa fil masjid ki nekk jàkka ci sa wet jàkka nekk ci sa wet nga nga jàkka nee ngay jullee sa kër amoo julli soo julliwul ca jàkka ya yaakaar na ni kët kenn ku nekk gis nga Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke radiyallahu anhu julleem googee mu julli woon te ànd ak taw ba dañ naan ko dee taw mu xuus ca taw ba waaxu dem ci jàkka ñu wax ko mu ni bu tooy ci sa kaw de moo gën bu muy tàkk ci sa kaw kon nag war nañoo bàyyi xel bu baax a baax a baax lii nga xam ne sii moo ñu dajale lii nga xam ne moo tax ñu taxaw taxawal place mel ni def ci ji alal loo xam ne si kenn xamul nu mu toll kon buñ ko foyee nañ bàyyi xel julli bu baax a baax a baax te fexe ba xam ay farataam ak naam ni ma ko waxee woon léegi rek moom lay baamtuwaat ñaaw na lool te nekk na gàcc ci ab julit nga dem baam juróom fukki at wala juróom benn fukki at sa doom ju tuuti ji nekk ci kër gi su dikkee na bàyyi lan mooy faratay julli doo ko xam su lan mooy faratay jàpp doo ko xam te farata yi lu mu bari bari bari ëppul ñaar fukk sunna yi lu bari bari ëppul ñaar fukk kon ku ko xamul dalaa ñërul doomu aadama da ngay gis mu juddoo foo xam ne sii maam ñu jaar baal ma ci waxin wi du fekk alal dara seen kër du fa am dara mu jaral ko mu takk ndigam dem di laxasu du xaar ku ko dimbali fenn fu nekk fu mu yaakaar ndimbali na fa dem dem ba ci réew yoo xam ne sii amu fa ndey amu fa bàyyi làkk wa ñuy wax sax xamu ko wante àddina ku ko ñor moo tax mu dagg paas fexe ba dem fa su demee ñooña la ñu wax dana lijjanti ba xam ko ba mën a wax ak ñoom ba lampay fay wut mu mën koo am te diine ji nga xam ne sii mooy defar tey defar sa àddina sa ëllëg nga sàggane ko sàggane koo xam ne fii ñàkk gi ko xam ñàkk xam foo si woo mu dañ danga ngaa fas yéene deewaale ñàkk xam googu suñu waxee ñu ni sëriñ si ñoo war a waare waaye sëriñ bi ni ko yàlla digale nii la digale ki dul ab sëriñ ni mu ba xam noonu nga war a fexee ba xam sañ Moussa kër wax nañu ne ku xamul laajul ku xam xawma la yem ku toppatul yàlla la toppi waaye mbaalu ko dal bu mu ko xul ku xamul laajul ku xam xamuma layam yàllaa ko ne mooy fas alu ana zikri in kuntum laa ta'lamuun soo deente xamoo ba na bëgg dee ci ñàkk xam googu doo am lay yow ma xiyaam ci suñu borom boom ndaxte moo la soo xamul dama laaj ci xam ñiy jàng lee fi la ci ëpp loo leen laaj seen diine daan la ko xamal te duñ la ci laajub dërëm su ko bisee nga romb koo xam ne borom xam-xam boo xam ne yéen a dëkk seen kër yi maanaka du mat ñetti kër seen diggante nga ñàkk xam ci sa diine loo xam ne jërul la benn yoon nga dem di ko fa laaji loolu gàcce la yëpp jullit jullit bu nekk war naa góor ba la gën a néew muy fardu ay nii mu xam ko la Sëñ Tuubaa ne awalu ma aw joobu rahmaanu xat an alal mukallif al imaanu suma mahrifatu maayislu bi amra diini fanta bi li jëkk a gën a war ci mukallaf mu nekk ngay wuti dërëm wala loo mën di wuti ne li la jëkk a war mooy nga fexe ba xam sa diine sëñ Tuubaa nee man kaana jaahilan bi far di yasal fa nasu abada képp koo xam ne sa mbirum diine réere nga ko te laajoo ko jàngoo ko alak nga sa bopp tooñ nga sa bopp te bis ba nga xam ne fii ku fa tooñ da gis fayu tooñ da nga xam ne fii tooñ sa boroom dalay àddina jëru man kaana jaahilan bi fardihi walam yasal fa nafsu abada wasalam sëñ Tuubaa moo ko wax ci tasawur si xaar képp koo xam ne réere nga soo farata te laajoo ko jàngoo ko fa abaada nafsoo wasalam kooku alag na boppam tooñ na boppam te xamul mais bis ba mu koy xam day fekk rëcc day wekk day jëfees kon mbokk ñu bàyyi xel bu baax a baax ci suñ digganteeg suñ boroom digganteeg def ndigal yi ak bàyyi tere yi def ndigal yi bàyyi tere yi dara jiituwu ci julli mii ndaxte loo xam ne yonent bi wax na ne mooy kenul diine ku ko bu màbb màbb nga diine loolu mën naa bàyyi xel bu baax a baax lu waay mën def lu dul jaamu yàlla Seexul Xadiim nee na bis dana dikk nga xam ne si la nga doon def jaamu yàlla ko gën kon ñu bàyyi xel bu baax a baax ci li may gën a insisté mooy ñu tàmbalee gi sama bopp ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax ci suñ bopp ak ci njaboot gi xamal leen jaamu yàlla julli ak faratay julli julli ak sunnaam laab ak farataam ak i sunnaam faratay njàpp yi ni ma ko waxee léegi ak faratay tiim yi amul benn farata wala benn sunna bu ci ëpp ñaar fukk ku doon def bis bu nekk nga xam ñaari sunna wala benn sunna mokkal ko denc bala ngaa am weer da nga xam lan mooy faratay julli bala ngaa am weer da nga xam lan mooy faratay njàpp wante ñaano lool nit ki màgg comme ni ma ko waxee woon léegi rek ba am nangami at wala ba suqi ko bi jaaw teqantal faratay julli mënoo teqantal sunnay julli te ni ab jullit laa te la la war ñor ci wàllu àddina muy luy dox dundal sa àddina waxtu wu nekk yaa ngi ciy xarsab tànk ba am ci loo xam ne fii sax maanaam yow fekkoo woon baax fekkoo ko ci say maam te ñor la ñor moo tax nga mën a fexe ba lijjanti loola am maa nag diine ji moom jàpp nga ni moom loo xam ne si moom soo su julli jotee soo julli baax na soo amee soo su julli jotee soo julli wutama wante julli da ko war a waxtu wi li nga xam ne fii moom lañ taam mooy waxtu wu nekk nga def ko ci muxtaaram wante julli nga bëgg ko balaasee dem ci sag jot rek bala ngaa julli da ngaa dem ba sag jot may la ko kese jarul la dagg sa liggéey jarul la dagg say rendez jërul jarul lenn lu may moom julli fi koy placé rek mooy ci sag jot loolu kon mbokk yi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax xam ne fii àddina amul solo balaa ëllëg dem ne am na ñu ñu fi jiitu woon te dem nañ te nuy dem yàgg-yàgg nañuy dem wa kullu mu aatihi yawmal xiyaamati da yàlla nee bis bu bis penc ba kenn ku nekk da nga taxaw ci sa kanam boroom in uridu ila islam masatatu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu jazakumullahu